tawkiit nag mooy li fedd li wax rek maanaam dafa ñëw pour dàq majaas gi nga xam ne foog nga ko ci wax ci wala mu dàq ak jagleel gi nga foog ci wax ji te fekk du jagleel ci misaal boo jaa a dikk na zeydun zeyd dafay mel ni du zeydaa dikk téeréeb zeydu moo dikk leetaram wala ndawal Zeydu mën naa moo dikk parce que ndawal ndawal nit bu dikkee ma a ñëw ne diw ñëw na léeg nga dégg ñu ne yàlla ñëw na maanaam xéwalu yàlla moo moo ñëw mu daaf ak mu daaf ilay googu la tawkit ñëw pour wane ne amu fi jaa Zeydun pour mu dindil la nga naan ay rasulu Zeydin yonentub Zeydin mu daaf ak mu daaf ilay googu nga xam ne majaas la ci wax ji moom la la bëgg a dàqal ne amut mu ne jaa dikk na Zeydun Zeydun. suufu ci jëmmam moom moo ñëw du xéwalam moo ñëw du leetaram moo ñëw du ndawam moo ñëw loolu moo di tawkiit wala boog jagleel gi nga xam ne niru na ne wax ji am na ko mu dàqal la ko ni ki jaa dikk xaw xawmu nit ñi man nit mën naa yaakaar ne am na ku des daa am ñu ñëw am ñu des mu mu naa jàpp ne wax ji dafa am xusuus maanaam dafa am ñu ñëw mooy la kulluhum ñoom ñëpp pour wan la ne kenn desut loolu moo di tawkiit dafay feddali wax a tawkiit du tawkiit taabun aji topp la lil mu akkadi ñeel lañuy feddari tawkiit dafay topp lañuy feddari fii rafi ci rafaa gi wa nasbi ak nasab gi wa xafdi ak xafat gi wa taarif yi ak maarifa gi lu mu bëgg a jàngale foofu mooy tawkiit dafay topp al mu akkat tawkiit mooy baat ba ñuy feddalee al mu akkat mooy la muy feddali tawkiit dafay topp al mu akkat ci rafaa gi ni ki jaa dikk na zaydun zaydun nafsuhu ci jëmmam jaa fi'lu maadin moom ñu waral fata zaydun failun marfoon bi damm nafsu tawkiidun dégg nga eh, marfoon wala mutarafi addammata zaara al aqri wa mudaafun alhaada miru muttasilun mabni ala damm fi mahali jarin mudaafu ilay kon foofu tawkiid gi topp na mu akkat gi mooy lañ feddali ci rafa جاء ذكر القوم نني كلهم نيوم نيب نون لا جاء القوم فعل فاعل لكم نيك انا بي كل توكيد دغا وتوكيد مرفوع مرفوع ولا مترفي الدم الظاهر على اخره ومضاف الهادم المتصل مبني على الدم في محل جر مضاف اليه والميم علامة الجمع كن توكيد في توب المؤكد شرفا دغاي توب شي نيكي رايتو غيسنا زيدا زيد نفسه تي جمم ولا غنا رايتو غيسنا القوم نيني كلهم نيوم ياب رايتو فعل ماضي مبني على السكون تي بالتاء المتحرك دي موم داي باغ ني فعل ماضي مبني على السكون كوم نيكو وخون سي كوماسمون درس دين وتا دمير متصل مبني على دم في محل رفع فاعل زيد المفعول به منصوب ولا متنس به الفتره الظاهره على اخره نفس التوكيد لزيد وتوكيد المنصوب منصوب ورامت نسبي الفترة الظاهرة على آخره وهو مضاف على ضمير المتصل المبني على الضم في محل جر المضاف إليه رأيت القوم كلهم من رأيت فعل مع إعراب إيه من كلك القوم مفهوم به منصوب ورامت نسبي الفترة الظاهرة على آخره كل توكيد للقوم وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نسبه الفتاة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهادم المتصل المبني على الدم في محل جر المضاف إليه والميم علامة جمع kon tawkiid dana topp la muy feddali ci nasab gi comme ni nga ko gisee dana ko topp it ca xafat ga maanaam boo xafatee mu xafat niki maratu romb naa bi zeydin ci zeydi nafsihi jëmmam wala nga ne maratu romb naa bil qawmi ci nit ñi kullihim ñoom ñëpp maratu fi'l maadi mabni ala sukuni litisaali bi taal mutaharika wa taawu damirun muttasilun mabni ala dammi fi mahali rafi faa'ilun ba harfu جر زيد اسم مجرور بالباء وعلى جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار المجرور متعلق بمررت نفس توكيد لزيد وتوكيد المجرور مجرور وعلى جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهادم المتصل المبني على الكسر في محل جر مضاف إليه وأخر مررت بالقوم مررت نونيك إلى بحر فجر القوم اسم مجرور بالباء وعلى جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار المجرور دينغ إيه، معطوف على بزيد دنجكو عطف سيد مررت بزيد نفسي وبالقوم كلهم دافاي نيك معطوف على وخي مررت بالقوم نك دنا وجار مجرور متعلق بمررت رك دينغ كل توكيد للقوم وتوكيد المجرور مجرور ولا متجري الكسرة والظاهرة على وهو مدافع هذا من المتصل مبني على الكسر في محل جر مدافع والميم علامة الجمع دين naka noonu it tawkiit dafay topp la muy feddali ci taarifam ci nekk maarifa maanaam mu akkat bi bu nekk lañuy ñuy feddali bu nekkee maarifa tawkiit tawkiit bi maarifa lay doon looy déggee ci lool mooy tawkiit du toppi nakira nakira kenn du ko defal tawkiit maarifa rek dégg xanaa waa kuufi yoon ñoom nangu nañ nakk dañuy defal ko tawkit waaye daal eh, ñu ëpp ci nuxaar yi nanguñ loolu ndax baat yi ñuy defee tawkit yëpp ay maari maarifa baat yi ngay tawkit rek ci boppam yëpp ay maarifa lañ moo tax ñoom duñ topp nakira wala waral taalikat bi waxut wa tankiir yi da koy topp ci nakiraam déedéet wa taarif yi da koy topp ci maarifa lay wax dégg nga dégg baat tawkit bu dee kullu bu laafee foo mu laaf kulluhum laaf gim laaf maarifa moo tax mu nekk maarifa su fekkee baatu tawkiid la ci misaal waaye laafut ni ki ajmaw jaa al qawmu jaa dikk na al qawmu ni ñu ajmaw mboolem seen laafut waaye maarifa la lu tax mu nekk maarifa ki kon waa maarifa la lu tax parce que dafa nekk alam ndax baat la boo xam ne nii tawkiir lañ ko xamee kon alam la ci wàllu tawkiir ci baatu tawkiir yi ndax dafa ràññeeku pour tawkiir kese kon alam la te alam maarifa moo tax moom sax du soppeeku ndax ajma dafa yore siixatul fi'li te gën mu mudaari te nekk alam loolu waral du soppeeku kon baat tawkiir yi benn mu laaf maarifa di maarifa wala mu ñàkk laaf waaye ràññeeku gim ràññeeku ci nekk baatu tawkiid kese looloo koy def alam taalam maarifa la kon baatu tawkiid maarifa lañ moo tax duñ topp duñ topp kon daa nekk moom bi alfaazin ci ay baat maalumatin yuñ xam am na baat yoo xam ne ni moom lañuy ñu defee tawkiid dégg nga waaye baat yooyu an nafsu mooy baat bi firi jëmm wala ayn ak ayn gi firi jëmm xam nga ayn firi bët waaye muy bokk ci buntab tudd dara namm ci lépp tudd dara namm ci aynu day firi bët boo waxee bëtam bi ci bëtam bi waaye jëmm ji la ci namm dégg nga nafsi day firi bakkan waaye nafsu fii lim fi nam mooy jëmm ja dégg kon arab léeg-léegi mu tudd dara namm ci lépp man ngaa wax ne tabbat yadaa abi lahab bi ñaari loxo abu lahab bi alku na fekk jëmm jëpp lañ ci nam loo xam nag su fekkee tudd nañ lu ëpp dara moo tax xadis boobu noonu yonent sallallahu alayhi wasallam di wax ne sama jaam bi duma ma jegeñ nga du dañ di ma jegeñ lu ba ci ay naafila bu ma bëgg ko su ma ko bëggee maa nekk ay noppam maa nekk ay bëtam maa nekk ay tànkam maa nekk ay loxom li muy tekk mooy maa koy nekk rek bu fekkee ñaari loxo rek yàlla tudd na ko mu yóbbaale jëmm loo xam ci tudd ñaari loxo ak ñaari tànk ak nopp bët loolu kii ku mu génn ci yow si lépp jeex na li muy tekk mooy bu ma ko bëggee nekk ko rek loolu rek la dégg te yàlla sax moom du xaaj xaajee moom buy nekk day nekk jàmb yëpp. nekk yàlla nekk gi mu nekk jaam na nag nekk rek moo ko mën a firi waaye ku yàlla nekk gut nga bëgg xam ni yàlla di nekkee jaam bi da ngay da nga làmbatu ba bëgg a dee. Hmm. Hmm, ci inkaar nga xamut kon dana nekk ci ay baat yu ñu xam waaye ñoom an nafsu moo di nafsu di firi jëmm nafsu jëmm lañ ci namm ni ki jaa dikk na zaydun zaydu nafsuhu jëmmam jaa fi'lu maadin mabniyun alal fatha زيد فاعل مرفوع بضمة الظاهر على آخره نفس توكيد لزيد دفع فعل لزيد وتوكيد مرفوع مرفوع وراء مترفع دمة الظاهر على آخره توكيد لا دفع بن ياكار ندول زيد مو نيو ولا لتر ولا يوي وهو مضاف نفسه الها ضمير من مبني على الدم في محل جر المدافع اليه دنينا كشي عينو كيفير جمو dana firi bët waaye fii jëmm lañ ci nam ni ki jaa dikk na zeydun zeydun aynuhu jëmmam jaa fi'lu maadin mum ñaar fatha zeydun faa'ilu marfun bi damm aynun tawkidun li zeydin وتوكيل مرفوع مرفوع ولا مترفع دم تزار على آخره ومضاف الها ضمير متصل مبني على الدم في محل جر مضاف إليه عين في جم لن تنم وكل دالاي نيك كل غي في لب داغ نيكي جا ديك نال قوم كلهم نيوم جاء فعل ماد المبني على الفتحة القوم فاعل مرفوع بدم كل توكيد للقوم وتوكيد مرفوع مرفوع ولا مترفع الدم متزاير على آخره وهو مضاف الهادم المتصل مبني على الدم في محل جري مضاف إليه والميم علامة الجمع وأجمعوا درينا nekk ci مم توكيد نكي جادكنا القوم ki jaa dikk سين جاء القوم إيرام لنكم أجمع توكيد للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع ولا مترفع الدم متزارع على آخرين وتوابع أجمع أجمع أجي توب أجمع دني دني نك توكيد تي توب أجمع وهي نيوم أكتاو مودي أكتاو دنجا وأبتاو أك أبتاو وأبساو أك أبساو ñetti di ak taw ab taw ab saon dañ koo indi pour ñuy topp aj maw gannaaw aj maw ñëw ni ki jaa dikk na al xawmu nit ñi aj maw na mboolem seen mën nga def aj maw it ak taw na ab taw na ab saon na muy firi mboolem seen yëpp mboolem seen lay fii jaal xawmu aj maw na ak taw na ab taw na ab saon na gannaaw ba nga tuddee aj ngay door a tudd جاء القوم يلعبون نك أجمع ونتأكد للقوم وتأكد مرفوع مرفوع ولا مضر فيه الواو نيابة عن الدم عن ضمة الآن وجه مذكر سالم وأكتع التوكيد سايم للقوم وتوكيد مرفوع مرفوع ولا مضر فيه الواو نيابة عن الدم عن ضمة الآن وجه مذكر سالم وأبتع التوكيد ثالث للقوم آه، وتوكيد مرفوع مرفوع ولا مترفي آه، الواو نيابة عن الدمة لأنه جمع مذكر سالم وأبصرون كوكيد آه، توكيد رابعا للقوم وتوكيد مرفوع مرفوع ولا مترفع الواو نيابة أي دنجا مسرسي تمتي لأنه جمع مذكر سالم كن يو أكتعون وقن جاء القوم أكتعون أجمعون كن أبتعون أبصعون لأن أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون نيوم gannaaw أجمعون لنيو نيوم ñëw أكتعون أبتعون أبصعون ak taw na mu ngi jógee ci dégg nga lu dajaloo rek baat ak taw mooy lu lu dajaloo dégg loolu lañ si nam ab taw nag mu ngi jógee si bata al batau gi firi dox gu gudd waa dañoo wax ne nit ñi buñ dajaloo seen dox yi dañuy gudd ku nekk di xool maanaam dajaloo lañ si nam moom rek moom baat boobu ab saw mu ngi jógee si al basa gi firi ay eh, lu dajaloo moom it maanaam baat yi yëpp daanaka lu dajaloo lañ ci namm mën naa yore yeneen maanaa nag ci luxatul arab bi waaye fii moom maanaa dajaloo gi lañ ci namm boo xoolee seen maanaa yi dinañ ci génnee ak dajaloo maanaa dajaloo gi ci namm dégg gannaaw ak taw la ñëw taqulu da ngay wax ne qaama taxaw na zaydun zaydun nafsuhu ci jëmmam waraayatu gis naa alqawma nit ñi kullahum ñoom ñëpp wa maratu romb naa bil qawmi ci nit ñi ajmaina mbolem seen waaye ay tu yaakaar naa yaraaboon nañ ko léegi de alqaama mafhum bi mansubun wala wa qaama zaydun nafsu loolu iraab na lu mel ni moom léegi raaytul qawma kullahum kulla tawkidun lil qawmi wa tawkid mansub mansubun wa huwa mudaafun alaa damiir muttasil mabni alaa dam fi mahalli jarri mudaaf ilayhi wal mim alaamatul jamii marartu bil qawmi bil qawmi nag jaara majruur mutaaliqun bil marartu أجمعين توكيد للقوم وتوكيد مجرور المجرور وعلامة الألياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم دين أول مري مري إعراب كيف توكيد تجنون باب توكيد باب خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة ممن سكون في معنى رفع مبتدأ باب خبر مبتدأ مرفوع ولا مترفي عدم متزار على آخره وهو مضاف التوكيد مضاف إليه مجرور ولا متجري الكسرة الظاهرة على آخره لولو الإعراب هذا باب التوكيد التوكيد مبتلو مرفوع ولا مترفي الدم متزار على آخره تابع خبر مبتلي مرفوع ولا مترفي الدم متزار على آخره لا محرف جر المؤكد اسم مجرور بلا ولا متجري الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق بتابع في عرف جر رفع اسم مجرور بفي ولا متجري الكسر الظاهر على آخره دينغ دينغ آه والجار المجرور متعلق بتابع تابع لا أجب ممت آه هو مضاف هذا ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه وحرف عطف نصب معطوف على الرفع والمعطوف على مجرور مجرور ولا متجري الكسر الظاهر على آخره هو مضاف هذا ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه وحرف عطف خفض معطوف على رفع والمعطوف على مجرور مجرور ولا مرتري الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف الآدمي متسلم على الكسر في محل جر مضاف إليه وحرف عطف تعريف معطوف على رفع والمعطوف على مجرور مجرور ولا مرتري الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف الهادمي المتسلم على الكسر في محل جر مضاف إليه دعنا واو للاستئناف يكون في مضارع ناقصة xam nga ñoom dañ leen tuddee af euh, fin yoo xam ni al afal an naqisa fin yu wàññeeku parce que fin lu daraan doylu ci faayilam rek jaa dikk na al qawmu nit ñi bu la neexee bul indi maxoonum bi mais fin yi tànk indiwoo maxoon kii bi xabar ba du mat moom mënul doylu ci lam rafaa rek dégg nga boo waxee kaana nekk na muhammadun muhammad wax ji du mat kon fenlu fenlu bu manqué la te jaa muhammadun moom rek day mat yooyu moo tax ñu tuddee fenlu naaqis fenlu mu daaro naaqis la yarfon isma wa yansubul xabar wa isma damir mustatim taqdiru huwa dégg nga ba xarfu jar alfaasi ism majrun bil baa wala mutajari الكسرة الظاهر الآخر والجار مجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنا لخبر يكون دينا معلومة نعت للألفاظ ونعت المجرور مجرور ولا متجر الكسر زار على آخره واو للاستئناف يد من منفصل مبني على الفتح في معنى رفع مبتلى النفس خبر مبتلى مرفوع وعلامة رفعه الدم زار على آخره واو حرف عطف العين معطوف على النفس والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الدم متزار على آخره واو حرف عطف كل معطوف على النفس والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الدم متزار على آخره وأعرف عرف أجمع معطوف على النفس والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفي الدم تأذى إلى آخره وأعرف عرف توابع معطوف على النفس والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفي الدم تأذى إلى آخره ومداف من توابع أجمع مداف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف li ko teree soppeeku waxoon naa ne mooy nekk di mu nekk alam هي دمير منفصل مبني على الفتح في معذرة في مبترى أكتع خبر مبترى مرفوع ولا مطر في أدم متزارة على عقله وأعرف عرف عرف أبتع ومعطوف على أكتع والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مطر في أدم متزارة على عقله وأعرف عرف عرف أبسع معطوف على أكتع والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مطر في أدم متزارة على عقله دنجر تقول فعل مدار مرفوع ولا مطر في أدم متزارة على عقله وفعل دم مسلم تقدر أنت قام فعل ماضي مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع ولا مترفع دم على آخره نفس توكيد لزيد وتوكيد مرفوع مرفوع ولا مترفع دم على آخره وهو مضاف على الهادم متصل مبني على الدم في محل الجر مضاف إليه واو حرف عطف رأيت دنجا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الدم في محل رفع فاعل القوم مفعول بمنصوب منصوب ولا متنجم الفرد الزائر على كل توكيد للقوم وتوكيد آه، منصوب منصوب ولا متنسب الفرد الزائر على عقبه ومضاف العدم ممنوع على الدم في محل جر مدافع لي والميم علامه الجميع واو عرفات مررت فعل ماضي ممنوع على سكون اتصاله بتاء متحركه والتاء من متصل ممنوع على الدم في محل رفع آه، فاعل باع جر القوم اسم مجرور بالباء ولا متجري الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق بمررت أجمعين توكيد للقوم وتوكيد المجرور مجرور مصدر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم لولا مود إن أريد الإسلام واستعنت مع توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته